Fatou maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm euh, di ziar ñëpp di ziar sama sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ Mouhamadou Habib Mbacke maa ngi koy ziar bu baax ziar xalif général kulli murid suñu jóge léegi sëñ Mountakha di ñaanal Touba gépp yàlla na màggal si jàmm yàlla def ko jëpp jàmm nit ñi ñëw si jàmm ñibbiwaat si jàmm ci barke sëñ Touba. champion ndax mënoon nañoo xam tey jii moo waral ngeen def délégation bu am solo bi ñëw ci Touba Mbacke. waaw dem délégation taalibe sëñ euh, Babacar waa Tiwaawan ànd ak magam Masata moonu woo Aziz nekk ki nga xam ne sunu nit la sunu kóllëre la démb doog ñëw tey kon tey ñun bu ñu ay taalibe sëriñ Touba moom mu ñëw war indi ay euh, teraanga ci biir Touba dañ koy gunge ànd ak moom ñëw ndax lu mu def ñun ñëpp la ko defal diine gépp la ko defal Tiijaan Laayeen Xaadir Ñaseen Murit lii mooy wan ne Sénégal ñun ñoo bokk ndey bokk baay kon xale yi war nañ gën a xoolaat ci mbir yi xoolaat xam ne kilifa yu mag yi ñëpp ñoom Maam Abdou Aziz da baax ñu ñëpp ñu sëñ Fàllu ñu ñëpp ni na ne sëñ Saaliw ñëpp doona bokk ndey bokk bàyyi diine gi bokk ndey bokk bàyyi kon lu Aziz def ñu tey loolu tamit ci la ndax boole na tey lu bari waaw boo xoolee ñi fi ñëw tey Tiijaan na ngi fi xaadara ngi fi ñaseen na ngi fi laaye ngi fi ñëpp ngi fi tukulóor séeréer ñëpp ba njaago yi sax ànd ci délégation bi loolu man ni Sénégal ñoo bokk ndey bokk rek kon Abdoul Aziz dañ koy ñaanal yàlla yéen tamit sëñ Tuubaa bi ñu yaakaar ñun dal na ko yàlla gën a jëme ci kaw ak njabootam yëpp ak famiyam ak magam Masata ak papaam ak ñëpp ak ñu fi ànd ñëpp ñi si ñëw ñëpp si délégation bi ñu ngi leen ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm parce que ñu ngi ñëw man ak Omar Sakho ñoo ànd Balla liiru jaan ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ñoo ànd ñëw ci délégation bi gunge sunu frère sunu lépp muy Aziz Ali Ndiaye ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal sutura defal ko xéwal bu ne yàlla na gën a mën lu raw lii ci barke sëñ Tuubaa. gisante nga sëñ bi. waaw sëñ Mountakha yàgg naa ko gis xam naa ko bu baax boobu nekkul sax xalifa ndax man yàgg naa nekk sëñ Mouride dem sëñ Mountakha sëñ Mouta sama sëriñ la sama xarit la sama lépp kenn ku nekk kum la jox man nag sëñ Mouhamadou Habib Mbacké mooy suma lépp mooy la ñu dem a ñëw màggal ci doole sëriñ Touba di ziar ñëpp di ñaanal yéen tamit ndax yéen a ngi nii li ngeen def tamit lu am solo la parce boo leen gisee lu baax di ko wane loolu dafa rafet te dama leen di ñaan rek euh, bu leen kenn dugal ci lu ñaaw ay jullit nunu ndax yow ma xiyam am na te boo xoolee fu mu toll nii àdduna jeex na ba pare nit bu waxee sax lu bon defar ko ba mu rafet def ko ndax yàllaa lay fay métier bi nga nekk si ngay jaamu yàlla kon yàlla na yàlla suturaal ba ngeen am seen télé bopp am seen lépp ci barke Sëñ Tuubaa ci barke màggal waaw sant yàlla bu baax alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu sëriñ Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu di ñaanal yàlla suñu sëriñ sëñ Abdou Aziz Al Amin yàlla na yokk leeram ak ñëw bi ñu ñëw ci Touba nag at mu jot yàlla dafa def su màggal jotee rek ñu ñëw ànd ak mbokk suñuy xarit suñuy am di jàmm ngir ñëw fii ci Touba santale yàlla suñu maam ju baax ji Cheikhul Khadim bisam bu tedd boobu nga xam ni daf ko doon def rek ngir sant ci yàlla subhanahu wa taala looloo waral ci suñu ay ndigalu kilifa ñu ñëw fi ak mu jot dinañ ñëw balaa màggal bisu màggal tam ñu ñëw ànd ak suñu mbokk yi suñu xarit yi suñu soppe yi taalibe Cheikhul Khadim yëpp ànd ak ñoom ci màggal guddi gu màgg boobu macha allah. yow waaw sant yàlla xam nga tarixa yi moom ñoom ñëpp ñoo bokk jëmukaay ñoo bokk fu ñu jëm ñoom ñëpp ay taalibe Seydina Muhammad lañ sallallahu alayhi wa sallam te ñun fi ñu jokk muy tarixa na Tidiane yi dañ ñu royloo dañ ñu jàppaloo képp kuy nitu yàlla te kenn weddiwul kenn nattaabalewul ni suñu maam Cheikhul Khadim nitu yàlla ak xan la wàllu yu kamal la góor yàlla la boo xam ni ku ko am ci dëkk boo ko am rek danga ko war a fonk man li ma gëm mooy suñu maam Cheikhul Khadim patrimoine international la adduna yëpp ñoo ko bokk humanité bi yëpp ñoo bokk Serigne Touba bu ñu ko yàlla joxee nag fii ci Sénégal te ñuy ay taalibe Seydil Hadji Malick dañoo bokk ci ñi nga xam ni dañoo war di ñëw di rafetal suñu liggéeyu mag ñi nga xam ni ay magu diine lañu woon ay magu yàlla lañu woon ba tax na lépp lu ñu la fii ci Touba rek dañuy ñëw teewe ko incha allah. Mhm. Euh, waxtaan bi waxtaan mos a mën nañu moom gis nañ ko waaye man yàlla moo def dama am cofeel ci moom ngir mbaaxam ngir sellam. ngir ñu ma ko gisee muy magum yàlla moo xam ne magum l'islam piir la ma gis li muy doxal ci dëkk bi ci wàllu réconciliation ci wàllu aide sociale yi muy def di taxawu askan bi yëpp ci ku am jafe-jafe ci bu nit ñi jaaxlee seen xel yëpp dem ci moom loolu dafa tax ma sopp ko bu ci des nag man dama bëgg magum lislaam dama bëgg magum diine te dama gis ci moom ay qualité yoo xam ne jar nañu fonk ko bëgg ko sopp ko saa su ma ñëwee ci moom rek daf may gën a jaaj sant ñu gërëm ñu ñaanal ñu yàlla rek ba at mu jot dañuy bëgg ñëw Touba di ko fa fekk macha allah. délégation bi ci waaw ñii nag en dehors de seen métier làmb suñu ay frère lañ casquette mbër ñoom bu làmb jotee lañ koy sol mais bu làmb jeexee. ay nit simple lañ ay doomu aadama lañ yoo xam ni suñu ay frère lañ. Balla Gaye suñu relation ak moom ñëpp xam nañ ko. ay baaboo yeeg ñi nga fi gis ñëpp en dehors de leur métier ce sont des amis et des frères. loolu moo tax fu ñu jëm dañuy ànd ak ñoom ñoom tam suñu xewlee ci seen métier ñu taxaw leen. loolu moo dox suñu diggante ak ñoom suñu ay rakk ñoo fi nekk suñu mag suñu ay xarit suñu ay soppe ak ñoo xam ne suñu am di jàmm lañ ndax yiw wi ñu wutal suñu bopp lañ leen yéene ñoom ñëpp. ba fu ñu jëm rek ànd ak ñoom macha allah. waaw man nag nekkatuma promoteur dégg naa la sax nga présenté ma léegi ci casquette promoteur mais ëpp na ñeenti at xaw ma juróomi at tëggatuma làmb amatuma ci ndigal te ñëw ba Touba sax di tudd làmb moom da dul teggin ci man. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi lay fay. ñu ngi jox sa wàccuwaay. di sant yàlla bu baax di julli sant bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaar waajur di sant sama Tuubaa Xaadimu Rasuul rawatina suma sëriñ sëriñ Basiru Ba ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg lool te njabootu maam Cheikh Fall mu yàgg lool te dàkk Bou Kounta njabootu Cheikh na Cheikh Sadio ak Alaaji Maalik ak suñu Babacar Si képp kuy tarixe diine rek ñu nekk ci xalifa yàlla na suñu borom yàggal ñu wàcc liggéey yàlla na yàlla yërëm taxaw di ñaan la sama papa fu mu tëdd yàlla na suuf sedd ci kaw ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa fi àndal di nuyu suñu papa Diaw mi nga xamante ne ñoom laa fi àndal ak ñoom Abdoulaye Sall Ndiaye ñoom Baye ak ñoom Masata Amirou Diane waa Boye suñu papa Xaadim Samb rawatina waa Géejawaay yëpp ñoo xamante ne dëgg yàlla euh, ñoo bàyyi ko Dakar ñëw Touba ak nga xam dëkkuñ sax Géejawaay di wax euh, fay naa booy jox sa wàccuwaay. d'accord alors champion mën nañ si ne xam tey jii lan moo waral say tànk fii ci dëkk bu tedd bi di Touba Mbacké. waaw Touba kay macha allah. boo nekkee même boo nekkul murit sax da ngay gis ñu fi teew rawatina ma nekk taaliba Serigne Touba Xaadimu Rasuul nekk murit Serigne Bassirou baar di suma Serigne suma kilifa ñaan yàlla yàlla yokki leeram bokkoo ak Sëñ Bara yàgg fee teew xëy nag yàlla mu ngi doog a doog ànd ci délégation yu mel nii. ko waajal kon ni ko mbokk julli yëpp di ko waajale rawatina taalibe Serigne Touba yi ni ñu koy waajal rek laa ko waajale ndax war na koy jëfe ndigal bàyyi cere ci dox ci li nga xamante ne li sëriñ bi bëgg julli jaamu yàlla respecté waxtu yi doon taalibe jëfe ndigal bàyyi cere sëñ bi nga xam te ni moom moo ne xalifa général kullu murid sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké nekk koo xam te ni quand même ñëpp ko sopp tijaan yeeg murid yeeg ñëpp tey jii su ma doon wax rek ay ay kaddu ci moom lan lay doon. waaw ndeysaan rek mu nekk nit ku baax nit ku bëgg sëriñ Tuubaa nit ku gëm li ñuy def ci yedd doomu aadama yi rawatina di leen xiir ci jaamu yàlla rawatina di leen wax ne lépp lu waay nekk rek na doon lu jub dëggal leeral loolu dara dàq ko ci àdduna te bu koy wax dama ci gis sama bopp sama xol da ci sedd ay ndaw lañu di liggéey ba yàlla def fi ñu ñu àgg ñu àgg fa waaye nag dañoo respecté suñuy kilifa ndax nit bu fekkee dafa am kilifa lu bëri du ci fekkee dafa kilifa lu bëri doo ko ci dégg kon moo tax am kilifa loolu solo la bu fekkee ne yow balaa ngaa def dara si ci waxtaan ak kilifa lépp looy def si àdduna doo ci jum nag loolu képp kuy ndaw maa ngi koy dénk loolu respecté say kilifa respecté ñi ngay àndal fonk ñi ngay àndal loolu rek moo ci solo. safoor gi doo am solo ndax ren nga ko def wala sax yaa ngi waaw ñun ay taalibe lañu. te gis ñu incha allah ndëgam neex na yàlla ñu fekkee ko. dañ koy def safar bi ñu ngi koy def mercredi bu soobee yàlla. bu soobee yàlla kon daf fekkoon ñu nekkoon ci yooyu. rawatina màggal gaa ngi ñëw donc ñu bii ren dañ koy def benn fan bu soobee yàlla ndax màggal gi jege mais mercredi bu soobee yàlla incha allah invité nañ mbokku taalibe yi mbokku jullit yi mbokku jaamu yàlla yi dañ fay jàng xasise ñaan. jàmm yàgg ñaanal si ñu taxaw mu yàgg loolu te mercredi daal bu soobee yàlla incha allah yàlla. bu ñu mën a parce que lutteur nga euh, sa combat bi yaa ngi koy waajal actuellement. comme dama nekk ci dese mënaguma la wax ay affaire combat actuellement mooy suñu liggéey na gaa mënut a ñàkk c'est des comme c'est pas le moment moo tax moo loolu nga baal ma. kon li nga ma laaj rek vraiment kontaan naa si. ko ziar si bi loo leen ziar bu wér. waaw di kontaan. fii ñu daje ci bërëb bu mag bi. fii mooy kër Serigne Touba. ñu àndal kan Abdou Aziz Ndiaye ñu koy woowee Al Amin mu ñëwoon ñu àndoon ci délégation bi bu ñëwoon fii tey di ñëw di indi ak ziaram te doon na ko guléet yàgg na koo def ni mu koy defee Touba noonu la koy defee Tivaouane noonu la koy defee Ndiassa noonu la koy defee këru diine yëpp comprendre nga war a xam ni këru diine yëpp benn la tey jii li mu def nii suñu xol da cee sedd ñun kuréel kuréel xam ne ay taalibe ay murid lan kon su jógee di def lii ñun euh, dañ ciy feer dañuy jóg pour ànd ak moom pour gunge ko te yàgg na koo def moom diine ko ñor diine ko jot suñu ñëwee ànd ak mu ànd ak délégation bu am solo bii ku mel ni Diaw Diaw ah ànd ak Balla Gaye 2 grand champion ah ñoom Kor Ndiak ñoom Baye Ndiak ak Masata ñoo ñëpp kenn desul ñëpp ñëw délégation bu am solo bi ñu ko mooy indi fi ay tranga ñu dem toog sëñ taxa Mbàkke mu ñaanal ko loolu rek dafa neex moo tax tubaarikàlla macha allah xam naa li muy yóotu incha allah rab dina si jot ndax zadooram bii at yi topp ak yeneen ak yeneeni ce kanam de la jëm bismillahi fii nii ak daara yàlla